asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki Sénégal mbokki bitim réew mbooloo mi dajee toog yéen ñëpp ñu ngi leen di gërëm woote bi nag jàmm rek la moy li nga xam ne xew na ci réew mi mooy ñun dañu fal le président de la république jox ko pouvoir yépp yaakaaroon na day nekk jaamu réew mi ndax bitim réew président ya fa nekk dañuy defar seeni réew seeni loi suñ ko décidé lé kenn mënu ci dara kenn ku ne xam ne ne soo demee france loi ba nga fa fekk mënoo ci dara benn jabar seeni loi seeni aada mënoo ci dindi 15 ñun nag liñ soxla lu yomb la mooy bëgguñu góor jigéen bëgguñu góor jigéen ci réew mi ndax da yàq ci diine ji lu bari suñu diine lislaam d'accordu ci ñi ñu fi amoon muy kilifa yu baax d'accorduñu ci moom mi fi nekk tey ci réew mi la juddoo réew mee ko jur nee nañ ko lii bëgguñu ko d'accorduñu ci moom nag bañ na ndax biñ defaree dossier bi yóbbu ko assemblée nationale président assemblée nationale def ko rejeté léegi nag moom comme moom moom ñun ñoo ko fal ne ko lii dañu bëgg criminaliser ko mu bañ te moom bi bëggee criminaliser viol daf ko criminaliser ci saasi xëy na am na lu mu ci jublu woon waaye lii bi ñu waxee nañ ko criminaliser dafa lànk ndax mooy président de la république boobu ñu ëpp fayda bañ na ne du ko du ko criminaliser ñu nit suñu carte électeurs yi wetu yaa ngi ñëw la 23 ñun ñëpp kenn ku ci ne na xool ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xool ci l'islam bi am xool ci mag ñu baax ñi seet diggante moog yàlla ñu wan ko gannaaw bu ko kenn woteel ne ku ne am fulaay niim ñu bañ a lee ne du ko signé nañ ko bañ a lee duñ ko wateel maa ngi ñaan képp koo xam ne tey dégg nga kàddu gi nii ñu ngi ñaan lillahi wa rasulihi ku ne na am fula muy góor muy jigéen muy xale nañ ànd wan ko gannaaw bu kenn watti jëm ci moom ndax moom it liñ ko ñaan bañ na ko ñu nañ bañ nañ bañ moom kenn la bu ñëpp fula nee ko criminaliser nee na dossier bi kenn du ko xool kon ñu nit nañ ànd matak bu kenn wate jëm ci moom na kenn ku ne jël sa carte d'identité bi bés boobaa la 23 boo demee ci gise bi xoolal bu baax a baax bul wate mukk jëm ci moom jëlal nga wateel opposition bi yaa xam nag ci ka nga jëm waaye bu mukk nekk mukk moom mi ko bañ nañ ko wan gannaaw naaw ngi leen di sant ñu leen di gërëm asalaamaaleykum